وجهت كلي إلى ذي الفضل والمنن عبدا قديما له بالفرد والسنن وجهت كلي إلى ذي الفرد والمنن عبدا قديما له بالفرد والسنن حمدي وشكري لباخ لا شريك له على مجاورة المنجي من الفتن هداني الله بالماهي وأشكره من غير شرك ولا غش ولا كتم الحمد لله رب العالمين على محمد من بخير البشر أكرمني أثني على الله والإكرام بشرني وكان لله بالتبشير والأمن بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayyidina wa mawlaana muhammadin il amin wa ala alihi wa sahaabatihi alxurri almayamin wa ala xayri xadimihi dil xabli almatin wa ala man iqtafa atharahum ila yawmi ddin bokk jëlee di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh gannaaw bi nu santee sunu borom subhaanahu wa ta'ala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa tey jaajëfal al Cheikhul Xadim noo leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di ñaan Sëriñ Tuubaa Seex Muhammadul Muntaqa sunu borom yokk ko fan yokk ko wér ba mu àggale mboolem ay naalam ak yéeneem ci liggéey Seexul Xadim di ko ñaanal njabootu Sëriñ gépp di ko ñaan sun bopp nu taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp nu des fii seen télévision Lamp Fall ci seen émission bi ngeen miin ci émission xam sa diine muy am aju ba ñu nekk ci waxtu wi ci kàddu seen mbokk Sëriñ Mor Mbacke tey nañu bëgg a waxtaan tomb woo xam ne yàgg nañ ko waxtaan waaye du doy mu di fadlul quraanil karim alquraan ngeneelam ak wàccuwaayam ak la ca aju ñu bëgg ko seddle ci ñeenti tomb mu njëkk dañ dañ ko taarif dañ taarif mën a xamle lan mooy alquraanul karim ñaareel bi dañ wax ci ngëneeli alxuraanu karim maanaam ngëneelam wàccu waayam fa yàlla subhaanahu wa taala ñetteel bi nag mooy euh, nim nekk loo xam ne waree su ko dëdd waree su ko woon gannaaw waree su ko gannaawal ak dëggi dëggi jeexit yi nga xam ne dana ko def ci doomu aadama ji nga xam ne mu ngi koy jëfandikoo bi ci mujj di diggante Sëriñ Tuubaa alxuraan kon ñeenti tomb yooyu ci la ñuy tënk li fi xaj bu àgguti buñ desee incha allah ko ngir xamle ko dañu wax ne alxuraan mooy téere bi bàyyi ko ci borom subhanahu wa yàlla mi nga xam ne moo bind lépp amal lépp melal lépp yàlla mi nga xam ne dara tëw ko lépp la man yàlla mooy mooy ki ko wàcce alxuraan baat bi ci luxa mi ngi bàyyi ko ci baatub qiraa bi tekki jàng qaraa yaqra'u qiraatan wa quraanun kon ci baat boobu di tekki jàng ci la baatub alxuraan bàyyi ko mu nekk waxi borom bi subhaanahu wa bokk ci ay melokaanam min sifaatil muqaddasa moo tax alxuraan nekkul mbindeef alxuraan du mbindeef lii ñuy bind nag di ko jàng loolu doomu aadama gannaaw doomu aadama léppam zaahir la te zaahir la mën a jëfandikoo moo lu ñuy xool di ca teg loxo moo tax mu doon lu ñuy mën a gis ak a jàng nii rek waaye alxuraan dëgg dëgg dëgg de moom ci melokaan yàlla subhaanahu wa taala la bokk yi nga xam ne te yàlla melokaan dafay topp jëmm ja dafay topp jëmm ja ci ñàkk tàmbalee fenn nag ñàkk yam fenn nag bañ doon lu sosoog eh, nekk lenn képp lu lu amutum ñaareel ak yu mboolem melo yi ñu tudd ci melo yàlla yëpp la maanaam la jëm yàlla ja làmboo mu la melokaan yëpp di làmboo te alxuraan ci melokaan yooyu la bokk ndax kalaam la te kalaam dañ koy limal ci sifaatullahi muqaddasa yooyu ñaar fukki melo yi kalaam ci la bokk wa huwa mu nekk itam loo xam lottal na nit ak jinne ci indi lenn lu ni mel ak lu mu gàtt gàtt gàtt lu mu néew néew nit ak jinne ñoom ñaan ñëpp lott nañ ci indi lu mel ne alxuraan donte wenn xaraf la di sunu ba wax ne xool la indi taamaati leen su wal jinu àla yaatu misa alxuraan laa yatu misi wala suñ kompale woon yaatu misa xaatal ci bëgg indi lu mel ne alxuraan laa yaatu mislihi wala kaana bandum li bandin zahira donte dañoo dëgëralante maanaam ka am xam-xam indi xam-xam ko indi kat indi kàttan ma kenn ku nekk la nga am lépp nga indi ko ñu dajal seeni i kàttan nag seen i xam-xam seen force ngir bëgg indi lu mel ni alxuraan neen dañ ca lott ba mel ni dañ faa néewut laa yotu mislihi kon lu mel ni alxuraan moom dara kenn mënu ko indi ko ma yàlla subhanahu wa taala kon day wane kon lottal na ko nit ak jinne ci indi lu ni mel muy li ñu wàcce tam ci yonentam bi di sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme nii ñu ko bind ci kaamil yi noonu la wàcce noonu la wàcce euh, noonu lañ ko tuxare ñun ci as-salafu saalih muy mag ñu baax ñi mag ñu baax ci tuxale ko min as-sahaaba as-sahaabatu kiram sahaaba yi tuxale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi tuxale ko ci jibril alayhi salaam jibril tuxale ko min rabbil alamin ci borom mi subhanahu wa kon nii ñu koy jànge noonu la wàcce mu nekk itam loo xam ne lépp lu wér la waaye léppi tawaatur la nekk lu ñu jaamoo yàlla ci ak jàngam jàng alxuraan jàng jëmmi jàng gi jaamu yàlla la subhaanahu wa taala ni nga xamee ne julli jaamu yàlla soo ko defee ñu bind la ci teeba koor jaamu la soo ko defee am ci teeba xaj màkk jaamu la soo ko defee am ci tiyaaba jàng alxuraan noonu de mooy itam jaamu la soo ko defee ñu bindal ci tiyaaba ñu jàng alxuraan eh, alxuraan na wàcc na ñetti xeeti wàccin yu wuute ñetti xeeti wàccin bu njëkk bi muy wàcce ga wàcce bàyyi ko ca xam-xamu yàlla ñëw ci lawxul mahfuuz mooy wàcc gu njëkk gi bàyyi ko ca xam-xam borom subhaanahu wa taala wàcc ci lawhul mahfuuz ñaareel wàcc gi mooy wàcc gi mu wàcc bàyyi ko ci lawhul mahfuuz ñëw ci baytul izza baytul izza baralo bu nekk ci asamaan si féeteeg àdduna bi ñu ci ca lawhul mahfuuz lañ ko indi ñetteel wàcc gi nag mooy wàcc gi mu wàcc bàyyi ko ci ci jibril ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy bàyyi ko ci baytul izza ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi jaar ci ci jaar ci loxol Jibril mi nga moo di indi wax yu euh, bu ñu xoolee ne ñett ñaari wàcc yu njëkk ya alxuraan jépp a wàccandoo bàyyi ko ci euh, ñëw ñëw ci lawhul mahfuz la bëgg wax bàyyi ko ci xam-xam yàlla ñëw ci lawhul mahfuz alxuraan jépp wàccandoo bàyyi ko ci xam-xam yàlla ñëw ci lawhul mahfuz alxuraan jépp wàccandoo bàyyi ko ci lawhul mahfuz ñëw ci baytul izza kon ñaari wàcc yooyu bu nekk dafa wàcc mu najjaman wàcc gu mujj gi nag muy bàyyi ko ci baytul izza ñëw ci dënn yonente bi saa sam loolu da doon wàcc nag da doon wàcc ñaar yu njëkk ijmaalan la waaye bii nag mooy mën a jaman ba alxuraan ji pàccoon waaye wàcc gu mujj dama doon wàcc par tuuti par tuuti par tuuti mooy lépp lu jamono indi loo xam ne wax na ca jibril dem ci to jël jël aaya ba tolloog loola wàcc ko ci yonente bi saa sam ci ndigal borom subhanahu wa taala kon ba ci sax léeg benn aaya dong wàcc wala ñaari aaya képp mbaa lu gën néew lu mel ne xayra uli darari li muy gàtt gàtt moom dong nga bi wàcc nga xam ne baat la xayra uli darari nga xam ne moom dong li jibril wàcc ci yonent bi saa salaam léeg-léeg mu wàcce ndoo saaru lëm nag kon da doon xasabal ahdaaf may lu xew lu nekk rek la tolloog alxuraan ca loola ñu wàcc ko ni nga xam ne kon aaya bu nekk am na sabab am na li ñu tëddee sababu nusuul am na it luñ ko askanale moom aaya ba borom eh, subhaanahu wa taala newoon na wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruuhul amin ala ala qalbik li takun mina munzirin bi lisaanin arabiyyin mubiin nee na alxuraan alxuraan la jox dafa wàcc ruuxul amin muy jibril moo ko doon wàcce ala qalbik ci sa ci sa xol bi ngir nga di ci waare li takkoon min al mundarin bi lisaanin arabiyyin mubiin nga di ci waare ci làmmiñu arab wala leer naññ ko alxuraan lépp arab la di safa ba dafa am ñaari baat yu arab yu niroo te wute muy tanzil ak inzal tanzil mooy luy wàcc luy wàcc par tuuti tooti inzal mooy lu wàccandoo lépp ko tanzil euh, mooy luy wàcc munajjaman inzal mooy luy wàcc lu lu wàccandoo lu wàccandoo ijmaalan ni sunu ba waxee ne inna anzalnaahu xam nga néewut inna nazzalnaahu de inna anzalna fii lay laylatul qadr kon mooy tegtal baatu anzal inzal bi ñu jëfandikoo mooy tegtale kon alxuraan jëpp wàccandoo kon kon inzal mooy lu tegtal lu wàccandoo lépp tanzil mooy wàcc par tuuti tuuti te ne inna anzalnaahu mooy wàcce nañ ko fii laylatul qadr ci ak li wax ne shahru ramadan li si unzila xam nga foofu néewul nuzila unzila la wax kon unzila baatu inzal boobu mooy tegtal kon dafa wàccandoo lépp ci weeru koor jóge ci lawxul mahfuz ñëw ci baytul izza kon mu wax ne kon laaj wàcc guddi la xadar waaye wàcc ci weeru koor itam ngir mu nekk ak njub ci nit ñi ak firnde ju leer joxaan dafay tegu ci ak njub di teqale diggante dëgg ak fen kon xam nañ wàccuwaayam ak taarixu muy datub wàcc gi wàcc tama chehru ramadan di ci guddi gi laylatul qadr dafa wàcc jumlatan ala baytil izza ci la tàmbali da wàcc na ala xasabil ahdaf par tuuti tuuti liy dëggal loolu ci ne bi muy wàcc bàyyi ko ci baytul izza danoon wàcce par tuuti tuuti mooy li suñu borom ne wa qur'anan farraqnaahu li taqrahu ala nas ala mukth waaye wa nazzalnaahu tanzila xam nga ne wa anzalnaahu inzala waaye wa nazzalnaahu tanzila mooy dañoo alxuraan yi xam nañu ko teqale muy teqale mooy ñëwandoowut benn yoon ngir nga di ko jàng jàng ci nit ñi ci lu sax dàkk waaye wa nazzalnaahu tanzila ma ñu wàcc ko nag par ndànk ndànk ndànk màggaayam alxuraan lu tedd la lu màgg la lu kawe dara jala bokk na ci liy tegtale ak màggaayam mooy barik ay turam alxuraan dafa bari lool ay tur te Sëñ Tuubaa neewoon na waalam bi anna kathratal asaami dalilatun annal musamma saami na nga xam ne bari ay tur dafay tegtale màggug mbir mooma mbir mu bari tur rek jàppal ne bari bari ga tur bari ga ay tur dafay tegtale ak màggam ak ko kaweem taal xam bari loolu ay tur wi ci njëkk mooy wi ci gën a wi ci gën yàllaa ko ko tudde innahu la quraanun karimun lii de alquran la ju ju ju ju tedd ñaare bi ci ay turam mooy alfurqaan yàllaa ko ko tudde tabaaraka lii nazala alfurqaana ala abdihi man maa wàcc al yàlla mu barkel na yàlla mi nga xam moo wàcc alquran ci jaamam li yakun lil aalamiina nadira ngir rek mu nekk ak waar ak xuppe ci mboolem bindeef yi alkitaab ci ay la bokk yàlla ko tudde wa anzalna ilayka alkitaab bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi su ma neen maa wàcc ci yow téere bi ci dëgg ngir ma nekk luy dëggal la li li fi nekk ak la jiitu woon muy muy diine ya ko jiitu woon bokk na ci ay turam ad dikr yàlla ko ko tuddee wa haada dikru mubarakun anzalnaahu lii day ab téere la bu tedd boo xam ne man maa ko wàcce man yàlla bokk na ay turam at tanzil at tanzil yàllaa ko ko tudde ba tey wa innahu la tanzilu rabbil alamin ay kon bari na lool bokk na ca an nuur bokk na ca hudan bokk na ca shifaa bokk na ca rahma bokk na ca mawida bokk na ca mubaarak bokk na ca bashir bokk na ca nadir bokk na ca mubiin bokk na ca bushra bokk na ca aziz bokk na ca majid bari na lool yooyu yépp turi alquran la waaye tur wu nekk ci tur melokaan wam làmboo dafay jeexital ci ki koy jàng bu ne an nuur mooy leer la kon ki koy jàng dafay def ci moom leer shifa saafara la kon ki koy jàng dafay def ci moom saafara rahma ci tural tekk yërmande kon ki koy jàng su ma dafa def ci yërmande euh, bushra mbégte lay tekki kon ki koy jàng def def ci moom mbégte ku ba tur jeex tur mu mën a doon tur lam làmboo ci maana dafay jeexital ci kiy jàng alquran te di ko seetantal limu ay saaram di 114 mooy téeméeri saar la ak ñaar fukk ak ñeent saar yi tolluwuñ am na yu gudd lool am yu gàtt lool am yu digg doomu limub aaya yi bu dee ci riwaayatu warsh mooy juróom benn junni ak ñaar téeméer fukk ñant su fekkee limaali wuñ ci xaalo bale xaj ana nasir fekkee jàppuñ ko aaya ndax af dafa am ñu koy def aaya am ñu ko du def aaya xaaloo bale xaj ana nasir ci surtu mulki su fekkente ne jàppuñ ko aaya kon lim boobu ma wax lay doon su ko jàppee aaya na kon léegi day daan nekk six mille deux cent quinze aaya waaye liñ gën a liñ gën a jàpp nag mooy duñ ko limaale aaya lu tax xadis bi abi hurayra solo wax ne xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa inna suuratan fi lquran xalaathina aaya shafaat li saahibiha xata gufira lah tabaraka la si biyadil mulk rawahu ahmad na ci alxuraan téere saar woo xam ne aaya la fekkoon nu ñu def xaalu ba aaya bu fekkoon nu ñu ko def aaya kon léegi fanweeri aaya benn lay doon te yoon saas nee na saar wax na fanweeri aaya la ndax dafay ràmm ki koy jàng ba ëllëg sunu boom sunu boom jéggal ko kon gannaaw nee na fanweeri aaya la rek kon dañuy jàpp kon xaalu ba xaj naa ndax kon ñu ko jàpp foofu aaya bu dee ci moo gën a bari ay mi ngi toll ci 6228 dam benn jul junni ak ñaar téeméer ak ñaar ak juróom-ñett limu baat yi ñi koy toppatoo lim nañ ko waxe mi ngi nekk soixante seize mille quatre cent trente ci ay baat bu dee limu xarafi alquran mu ngi toll trois cent trois cent quarante mille sept cent quarante kii njëkk alquran bi mu wàcc yaxu kese la amul ay tomb waxuma la ay maska waaye bi ñu demee ba tàmbali ko yàq nag njàng mi lañ lañ lañ ci door indi tomb yeeg masque yi ndax dafa ko doon jàng iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin xam nga amuti tomb mu ne ko mu ne ataaka eh, iyyaaka na'budu eh, fàtte naa nu ko waxeeti waaye iyyaaka ataaka la ko la ko jànge ñu xam nag lii kat bu ñu ci sàkkut pexe bu nee ba ca kanam te dana indi musiba ci lañ nag ku ñuy wax buur bu ñuy wax Abdul Malik ibnu marwaan mooy ki njëkk digle digal ku ñuy wax jaaju ibnu Yusuf ne ko mu def ay tomb ci alxuraan bi ñu ko digalee ma def ci tomb nag ca la ko ca la ko seetliwaal de teqale ko pare xisib ñu doon ay xisib xisib sàngam ca la ca la ko ca la ko defaale mu am ci saar yoo xam ne dangay dañuy wax ne makkiya yi ñu ne madaniya sootu nangam madaniya sootu nangam makkiya loolu la muy tekki rek mooy fa mu wàcce bépp aaya bu wàcc lu jiitu gàddaay yonent bi saa salaam loolu makkiya la mooy lu wàcc fekk yonent bi mi ngi dëkk makka donte daa dem saam mu wàcce fa sax duñ ne saamiya waaye makkiya la ñuy wax ndax boo fekkee mi ngi dëkk makka bu ne madaniya mooy wépp saar wàcc gannaaw bu demee madina gannaaw bu mu gàddaayee ba mu nekkee Madina it saar bi fu mu mën a wàcce donte ko fekkoon màkk ci fatxu màkk it dañ naan madaniya ndax bu fekk na Madina la dëkk eh, am na benn changer bu tënk def naa sëñ Modou Bousso sëñ bu Bousso la leeral ci saar yi nga xam ne ñoo wàcce màkka ñoo wàcce Madina boobu ci la wax ne baqaratun fa alu imrana nisa maidatun anfalu tawbatun qisa falhajju fa nuuru fa ahzabun qital fathun wa hujuratun hadidunil jidal rattib ila tahrimi thumma alqadru falkawnu fa zilzalu thumma annasru fa falaqun fa nnaasu lil madina nisbatuha wal gayru lil amina yim tudd nii la wax ne madina lañ wàcce muy baqara ali imran nisa maida anfal tawba xajj nuur ahzab qitaal fatxu xujuraat xadiid jidaal tahrim qadr kawnu zilzal nasr falaq ak naasi nee na yooyu nga xam ne ñaar fukki saar lañ ak benn ñooy wàcce ñooy wàcce Madina yi ci des yi mu tudd nag ñoo wàcce Makka mu ne wala xayru lil amina mooy lil amina al amina foofu Makka la ci jublu lu tax mu ne al amina mooy barab bu bu wóolu mooy bu am sécurité ndax sunu ba ma wax ne Makka barab ba am sécurité boo ndaxaloo kaana amina boo ma ndaxaloo kaana amina ku fa dugg rek am nga sécurité ak masaabat li naa sa am naa sunu ba dafa def Makka xañ Makka mu nekk ab yool waaye nekk sécurité yi ca nga xam moo nekk Makka moo tax ma ne lil amina dëkk bu wóolu ba bu am sécurité ba alxuraan nekk téere bu tedd lool euh, nekkit téere bu ñu musal cig soppi ko la dal téere ya ko jiitu lu mel ni lu mel ni injiil eh, ak zabuur eh, ak yi bi wàcc injiil Musa ak tawraat tawraat yi linjiil nga xam dañ koo soppee soppee soppee soppi bala leen ci enraciwul lépp ñu génne ko ci taxrif ko lépp loolu alxuraan moom sun ba musul na ko ci loolu soo ci yokkon aw xaraf gone gu ndaw léegi ma lay wax ne loolu bokku ci soo ci wàññee aw xaraf gone gu ndaw ma lay wax léegi ne nangam ci la kon sunu ba musal na ko ci taxyir musal ko ci taxrif musal ko ci nuqusaan comme ni mu xew ci téere yi nasaar nasaar nasaar téere yahud yi ni ma ko la waxee léegi tawraat linjiil ndax waxaan waxoon na ne na inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafiduun xanaa boo xoolee aay bi lépp ay tawkiid la mooy xam ne li muy wax lu ko ñor la inna xarfu tawkiid la inaa ma nom newaat naxnu la dellu ina ina waa inna ba tey la xaafisoon laam na laam laam laam laamu tawkiid la inna nahnu nazzalna la xaafiduun nun yàlla noo wàcc alxuraan te nun yàlla it noo koy sàmm kon sàmm ko eh, eh, moo tax may su ko taxriif ma ne su ko taxyiir ma ne su ko ma ne su ca dolli dara mbaa ñu wàññi ci dara su dee aay bi njëkk a wàcc ci alquran mooy aay bi njëkk ci suratul alaq iqra bismi rabbika lati xalaq xalaqal insaana min alaq jàngal jàngal baatu jàngal moo njëkk a wàcc kon mooy tegtal ne jàng lu am sol la waaye bismi rabbika ci sa turu borom sa borom yi xam ne moo moo bind doomu aadama jële ko ci alaq kon mooy bi njëkk a wàcc ay bu mujj wàcc mooy tax wa taqayyun turjaan fii illaa suma tawfiq kullu sama kasab wa hum laa yuzlamuun ca surtu surtu baqara wa taqayyun turjauna fii na ngeen bàyyi xel ragal seen borom bi nga xam ne na fii da da ngeen da ngeen di mujj ci moom ci moom ngeen di mujj ilallah waaye nag bakkan bu nekk na ko fi jële suma tawfiq kullu sama kasab wa hum laa yuzlamuun maanaam bakkan bu faatu bu nekk rek la nga fàggoon ëllëg des na ko teewal ci la ca aaya boobu te yàlla du tooñ nag lu néew néew aaya boobu mooy bu mujj wàcc ci alquran donte wuute am na ci am na wax leneen waaye bii daal ndax dañoo wax ne bi gannaaw bi aay bu wàcce yenn saa saxaatu ci kaw àdduna gannaaw bu mu wàccee lu may juróom-ñeenti guddi te diggante bi waxaatu fi lu ñuy digle waxaatu fi lu ñuy tere wax naa léegi na alxuraan dafa wàcc Muhammad saasam mu naj jaman mooy dafa wàcc par tuuti tuuti diirub lim wàcc nag lim sax di wàcc mi ngi toll ci ñaar fukki at ak ñett ci la Alxuraan wàcc 23 ans kon wàcc ba ni ans la ni ko Ibnu Abbas nettalee wax ne yonent bi saa sum sunu mi ngi ko yónni ci ñeent fukki atam mu sax Màkka fukki at fukki at ak ñett Alxuraan di wàcc mu gën a dem Madina sax fa fukkeet alxuraan di wàcc nga boo xoolee mu liggéey ci juróom benn ak ñett ndax ñeent fukki at la dund alxuraan doo tàmbali wàcc alxuraan wàcc na màkk fukki at ak ñett soo ko doolee ci ñeent fukki at muy juróom fukki at ak ñett mu ñëw Madina am fa fukki at nga doole ko ci muy juróom benn fukki at ak ñett kon loolu mooy lim dund moom yonent bi sallallahu alayhi alxuraan bi mu wàccee dafa tasaaroo woon lii ci ay dari gileem lañ ko bind lii ñu bind ko ci ay xobite garab lii ñu bind ko ci ay doj waaye kañ lañ ko dajale ak lu indi dajale ga alxuraan dajale nañ ko lu ma ñetti yoon bu njëkk bi nit dajale wu ko waaye yàllaa ko dajaleel boppam ci dënn ñi ko mokkal mooy alxuraan yëpp dajale na ci dënn yonti saas mooy da ko mokkal ak dënni saxaaba yi nga xam ne mokkaloon nañu alquran ndax bari na ca saxaaba ñu mokkal alquran ku mel ne Abdullah ibn Mas'ud bokk na ñi ko mokkaloon Salim ibn bokk na ci xofaas yi ni ko noon Maas ibn Jabal bokk na ci xofaas yi Ubay ibn Ka'b bokk na ca xofaas yi Zayd ibn Thabit bokk na ca Ubay Abi Zayd bokk na ca ñoom ñëpp bokk na ci ñi mokkal alquran ñu bari lañu waaye dama ci lim ñooñu rek kon mooy dajale gu njëkk mooy yàllaa ko dajale kon ci dënni dënnu yenn saa ak dënni yenn saxaaba yi xam ne mokkal nañu alxuraan lépp waaye jëmmi nag mbind moom daa tasaaroo woon ñaaru dajale gi ñu ko dajale ci xilaaf ak abi bakrin siddiq mooy ki njëkk a wuutu yonente bi sa mooy njëkk mooy mooy alxalifatul awal lil muslimin la ko sabab mooy xaswatu yamaama li ci faatu ci julli dañoo bari lool te bari ci ñi ñi faatu ñu mokkal alquran si ma seetlu ne liikat bu dëkkut ñi mokkal alquran bu ñu faatoo ba jàng alquran dana dana dana dana raaf si ma seetlu ne donte sunu boom nee na maa wàcc alquran te maa koy sàmm it sàmm gi am na ci lool ci loxo julli ñi la koy bàyyee kon ko ne bu ñu seetaane ba ñu ko mokkal faatu ba jax kon alxuraan mën na caa am lu rëcc mbaa lu raaf dañu ci abou bakar xelal ko ci ne ne ko tey ñoo dajale alxuraan balaa bala bala bala balaa raaf sidna abou bakar mel ni ko ca tàng ne ko dinaa def nga dinaa def lu yonte saa seen defutoon xalaatuma ko waaye waaye nag sidna amur bàyyiwu ko di ci waxtaan ndànk-ndànk di wax ndànk-ndànk ba Aboubacar mujj nag comprendre xam ne li mu wax dëgg la suñ ko dajalee wut ba ñi ko mokkal faatu mbind yee tasaaroo mën na ca am lu lu réer ci la door dëppoo nag ci dajale alxuraan euh, ndax wax nañ ne juróom-ñaar téeméer faatu nañ ca xasut yamam ci wax ñaan ñëpp mokkal alxuraan euh, bi nga xam ne waxtaan ak moom ba mu déggoo ci nag ci la woo Zayd ibnu Saabit bokk nañu mokkal alxuraan te bokk nañu daa bindal yéen xam nga yéen itam jàngut mënutoon bind waaye ñi ko war nga xam ne saabu bu wàcce dañ koy dicté ñu bind ko Zayd ibnu Saabit bokk na ci ñi nga xam ne dañoo den yentu saa saa bu aaya wàcce mu dicté leen ñu bind ko waaye mu dajal ci dajalin wu maandu nag alxuraan mokkal na lépp moom waaye bala bi ñu ko dajal balaa bind benn aaya day fekk mokkal na ko moom ci boppam ñaar na mu am ñaari seere yu wér maanaam ñaari seere yu maandu yoo xam ne yëpp dañu dëppoo ci nen aaya bi wér na mu door ko bind ci lañ dajale dajale dajale bam des rek benn aaya mooy aaya la xat jaakum makkal na ko waaye benn seere la am benn seere te bu ci nekk da ko na ñaar ñaari seere muy ku ñu wax ki seere bi mu ci am mooy ku ñu wax ma ñu fàttali yéen saa sa masoon masoon nañ ma jënn jëm la ju mat ñaari ñaari seere maanaam bu seere mat na ñaar ñu fàttali yéen saa sa waxoon na la ñu door a fàttali kon lii taxoon mu doon wax loola ñu sukkandiku ci loolu daal di bindaay mooy laxat jaakum kon ci noonu la ko dajale waaye da ko dajale ci mboolem ahruf yi alxuraan wàcc yëpp mooy mboolem mboolem qiraa ndax xam nga alxuraan am na mat fukki xiraa mu bind ko ne ci fukki xiraa yëpp bi ko ci bindee nag eh, ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu baale ko dénk ko sayyidatuna Xafsa Xafsa bintu Omar doonoon soxna si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye doonoon boroom xam-xam it ci roxam lekk saa bu ñu soxlaa ci alxuraan dikk laaj ko jëfandikoo ci delloo ko mu dencaat gannaaw bi nag ñu tàmbali ko tasaare muy génn waa dem na ba jullit ñi nag tàmbalee gënalante ci njàng yi di ca woote di ca xuloo ki naan njàngin wee gën kenn ko dee wee gën keneen wee gën bañ di ca xuloo ba di ca jàppante ba di ci tiima tuumaalante kéefër waaye benn xare ba amoon ca Arménie Eh, ku ñu wax fa xusayfatul yamaan yi seetlu loolu bi mu gisee lool nag ba fekk na sina abubakar jóge na ba mooy xalifa bi nisee la ko ne nag gaawal ci xeet yu bal ñoo alku sina umar ne ko xew mu nettali ko loolu eh, asafala sidna usman la sidna la dama juum fekk na abubakar jóge fi ba usman nekk fi bu ko xosay fa ne gaawal ci xeetu bala ñu al ko mu ne ko mu nettali ko lii nag la Ousmane décidé ci dajale ko nag ci benn qiraa rek mooy wenn wenn làmmiñ muy làmmiñu Xurayshi bi nga xam ne ci la la wàcce woon ci la waa Zayd ibn Saabit ma ko njëkkoon a dajale moo la ko Abdullah ibn Zubayr ak Saïd ibn al-Aas ak Abdurahman ibn al mu dégg leen ngeen ànd dajalo alxuraan dajale ko ci benn làmmiñ muy làmmiñu muy lamiñu Xuraysh eh, comme nii ñu ko gisee muy nusxa bi ñuy jàng nii mooy booba moo tax ñu daa ko tudde mushafu Usmaan muy kaamilu Usmaan bi ñu ko dajalee nag ba bind ko ci la ci la wutlu lu ma nangami copie raison bu nekk mu yónnee fa benn copie ne ba fa nekkoon nañ ko lakk baa ñu gas ko suul te boo xelifu lu mu digle dañ koy def ñu ko tasaare ci resen ne ba fa nekkoon nañ ko gas suul nag ñu daan def loolu ba ci njëkk bu njëkk ñu gas ko suul nga xam ne booba dañ leen nga ne indi la indi boobu indi woon yu jàng loolu daal daal daal daal di far alxuraan daal nekk nag benn benn xaraf boo xam ne ci lañ ñëpp dëppoo loolu mooy ñetteelu dajale gi kon ñëw nag ci ngëneelul alxuraan alxuraan nekk lu mag nga neel ngir ne yàlla mi nga xam ne mooy maalikul mulki dul jalaali wala ikraam yàlla mi bind lépp amal lépp ci kàttan coobare nameelam yàlla mooy may ko wàcce alxuraan bi ci kàttanam nameelam xereñam xam-xamam ci la wàcce alxuraanul karim alxuraan nekk lu tedd lu màgg di li nga xam ne mooy li gën ci lépp lu ñuy sàkkoo tiyaaba alxuraan da gën lépp lu ñuy sàkkoo yërmande mbaa ñu ci sàkko ak njub mbaa ñu ci sàkko ak texe alxuraan da ca gën a gaaw moo ci ëpp doole ngir ahamiya bi nga xam ne làmboo na ko ndax jàng ko jëmbi jàng gi rek ndigale yàlla subhanahu wa taala te yàlla lu mu diglee lu nekk warugal la ci ab jaam te ne aqimi salaata li duluuki shamsi ilaa ghasaqi layli wa qur'aan al-fajri qur'aan al-fajri kaana mashhuuda nee na alxuraan ci suba yi ak ci guddi yi ak alxuraan fajar na alxuraan fajar ëllëg dafay seere borom ci kanam yàlla subhaanahu wa taala ne ko guddi gi na nga di tahajjud wa mina layli fatahajjad bihi naafilatan laka asaa asaa asaa an yab'asaka rabbuka maqaaman mahmuuda nee ko na nga ci tahajjud mooy di ci taxaw guddi di ko naafila kon amaana sa borom amaanay alxaan nag dëggal la saxal la xam nga su ma man su ma la ne amaana mooy mën naa mën ma ñàkk nekk waaye alxuraan su ne amaana rek mooy dafay saxal dafay dëggal mooy soo ko defee yàlla daal la day defal makaamu moo xam ne maqaamam mu tedd la mu kawe xam nga suñ ba moo ko dégg da dégg bu ñu noddee ba nga dégg ñaan ci ñaan ga اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة آت سيدنا محمد وسلم والفضيلة ودرجة رفيعة وابعث مقاما da ngay ñaan da ñaan ci gannaaw noddu gi ne yow sunu bu mat bii wa salaatil yaay borom julli gii bëgg taxawal aati sayyidina Muhammad wasilatu wal fadila yàlla na ngay in indil sayyidina Muhammad yàlla na nga ko jox wasila ak ngëneel waaye wabxashu xasa yabxasaka ja maqaama mahmudan allasi wa'adta yàlla na ko jox maqaama mu tedd bi nga xam yaa ko ko diggoon xasa yabxasaka rabbuka maqaama mahmudan kon moo maanaam wabxashu maqaama mahmudan allasi wa'adta eh, ba tudd na kon ay waxtu yoo xam ne kon ci lañ ko jagleel ci nga xam ne moo gën ci jàng yi donte jàng waxtu mees na ko jàng yëpp waxtu yëpp waa waxtu ci gën déglu ko ci mooy waxtu fajar moo tax yonent bi saasam xiroon lool ci alquran as saxaabatul kiram bi xiroon lool ci alquran daa ko taxawee ci guddi yi moom sayyidina Muhammad ba ay tànkam di newi ngir yàggaayu taxawaay ak julli gu yàgg tax sun ma nee na faqara o ma dee jàng ci alxuraan li ci jàppande li ci jàppande ci yéen del waxaat ne yaa ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw anqus minhu aw zid alayhi wa rattil alxuraana tartila yow aji sàngu ji Muhammad jugal taxaw guddi la ca ëpp xumi lali illa qalila na taxaw guddi gi ba mu des tuuti nisfahu muy genn wàllu guddi gi awun xus minhu mbaa lu ko yes tuuti aw si da alayhi mbaa lu ko ëpp waaye wa rattilil qur'ana tartila da nga jàngal xan jàngin wu rafet tartil mooy jàngin wi xam ne da nga koy tajwid rod na ci loolu nag ay ahadis yu baree baree bare bari yu tegtale ngeen ni lul alquran bokk na ca xadis bi yonent bi saa sama wax ne iqraul qur'ana fi noo yati yowm alqiyamati shafian muslim ne leen jàng alquran ndax bis penc kat ëllëg alquran dafay ràmm ki ko daan jàng ba ci sax yoolu alquran jàng gi dana jéggi sax ki ko jàng ba àggal ci keneen ku dul moom ba ci ñaari waajuram sëñ wax na ci wax na ci masalik ne wa xaytuma yubasmilu sabiyu fi maktabin yaktub lahu aliyu li walidayhi wa liman yuallimu baraatan min naarihi faltaxnamu sëñ Tuubaa nee saa bu buñ tegee alluwa ci lupp ab xale ne ko baa nel baa mu ne baa nel siin mu ne siin nel miim mu ne miim basama la jeex nee na yàlla bind xale bii ak ñaari waajuram ak ki ki koy jàngal ak dañ ci sawara mu ci ci sawara nga xam ne kon xale bee dal waaye ñaari waajuram sax ñu jéggal laaj leen ci loola moom ak ki koy jàngal ak ñaari waajuram kon ndeke kon ngeen la màgg na ba dana romb sax ka ko ka koy jàng ba àgg ci ñaari waajuram yonente bi itam sallallahu alayhi wasallam del waxaat ne xayrukum man ta'allama wa 'allama ñi ku nekk soo sañoon doon ki gën ci nit ñi saasam neen na ki gën ci nit ñi mooy ki jàng alxuraan ba noppi di ko jàngalewaat ci jàng alxuraan di ko jàngale waat neen kooku mooy ki gën ci nit ñi kon su newoon ku gën sañ naa yëkkati loo te muy dëgg rawaxul buxaari yu moo ko solo mu del waxaat ne assigaaru fil makatib shufahaul kibaari dawil dawil maaib saa su nee na nee na nda nee na dongay daara yi ñooy ràmm mag ñu sàggan ñi ne ndongay daara yi ñooy ràmm mag ñu sàggane kon ndongo daara ëpp na ëpp naa sàggane man ngaa xeeb ab ndongo te fekk ëllëg ma lay ràmm saa su wax dëgg la as-sigaar fil makaatib mooy ndongay daara yi sufaa wal kibaar yi ñooy ñooy mag ñi xam ne ñu sàggan lañu borom ba mag ñi bari am na solo lool ndax wax na ci beneen xadis ne istawjaba na istawjaba naasul iqaaba nadara allahu sigaara fil makatib fa yadfauhu anhum ne nit ñi dañ dem ba yaayoo mbugalum yàlla ngi seenu jéggi day seen mooy yàlla gu rëy ba dem ba yaayoo mbugalum yàlla waaye neen sumu doon nee bu ma xooleen dong yi ci daara ji dañaa ngi rek sama yërmande dam ma ma daal di fomm ma daal di bàyyi mbugal moom ñu yaayoo ma défendre leen ci waxaat ci beneen xadis ne isa tatabaati nnaasu bil maasi wa adlamati l ardu bi ahli l fisq wa ubidati sulbaan wa sujidat lin niiraan istaxaqa al iqaaba nadara allahu ila aswaati al awlaadi fi lmakatib wal muaddinina fi lmanabir fa yaxlumu alayhim wa yaruddu anhum ma yastaxiquuna min al adab yenn saa sallam nee na saa bu nit ñi tegalee seeni mooy yàlla ba suuf si lëndëm këriis ak i bakkaar lëndëm këriis ak i kàccoor ñuy sujootal ay korwaa di jaamu sawara ba yooyu mbugalum yàlla neen su ma nee sama cas su ma ne cas sama mbugal ba nar ko wàcc dégg doo ngay jàng ca daara ja ak noddukat yi noddu ci jàkk ja ne sama yërmande dam ma daa di fa ma mbaat mbugal moomee kon ndekki kon bari na dam nga boo dajal ci mbedd mi xeeb ko te fekk moo moo tax nga am jàmm bokk na ci lay tegtale ngëneelam ba tey li Abdullah ibn Mas'ud solo ne yonent saa su na man xara xarfan min kitaabillahi falahu xasana wal xasanatu bi ashri amsaaliha laa aqul alif lam mim xarf walakin alifun xarf wala mun xarf wa mimun xarf neen salaason dafa wax ne képp ku jàng aw xaraf ci téere bi yàlla bi dana dañ ko ci bindal aw yiw yiw wa dañ ko ful ba muy fukki yiw mooy duma wax nag alif laam mim xaraf la waaye dama wax ne alif xaraf la laam xaraf mim arab ba alxuraan jeex xaraf bu nekk rek loolu ci suñu boon di defal alxuraan ba tey dafay bokk ñu ngëneel dafay layal dafay layal ki ko daa jàng ci àdduna te di ko jëfee ba suñu boom jéggal ko yonente bi sallallahu alayhi wa moo wax ne yu'taa yawmal qiyaamati wa ahluhu allatina kaanu yaamaluuna bihi fi dunya taqdumu suratul baqara wa alu imran tuhajjaani an saahibihi tuhajjaani an saahibihi sallallahu alayhi wa sallam nee na bis penc dañuy indi alquran mu ànd ak yee ko daa jàng ci àdduna te daa ko jëfe suratul baqara ak ali imran ñoo koy jiite ñëw di layal kooka di ko layal ba yàlla jéggal leen xanaa kenn du ko laaj moom day taxaw ne alxaanay taxaw doon doon avocat bi ko layal loolu am solo la boo na ci waru gar nag waru gar la ci ki jàng alxuraan mu di ko tajwiid tajwiid mooy rafetal njàng bi da ko jàng njàng mu njàngin wu rafet eh, waru gar la waaye guddi it moo ci gën jàngal xan guddi moo ci gën am na xadis bu Abdullah abi Musa al Ashari yi solo radiallahu anhu xam nga yonente bi saas dafa xëroon lool ci alxuraan saxaaba yi xiiroon ci lool ba léeg-léeg daana génn guddi ji doxan ci mbedd ma di mu yonent saas di déglu saxaaba yi nuy jàngal xan ci kër nga xam ne alxuraan Madina guddi gépp day riir saxaaba dañuy taxaw ci seeni kër di jàng di di di di di naafila ta alxuraan ci kaw lañ koy tare léeg-léeg mu dox ni mbedd di leen déglu ci mbedd yi di leen déglu ni ñuy jàng alxuraan bis nag abi Musa al yi xëy si ko suba mu ne ko déglu naa la biig laxad uutita mizmaara mi mazamiri Daawud yow de déglu naa la biig waaye yàlla jox na baat bu neex bu mel ni baatu Daawud xam nga Daawud alayhi salaam neexoon baat lool ba bu doon jàng zabur malaaka yeeg jinne yeeg ñëpp dañu wàcc di ko déglu ngir baat bu neex mu ne ko ne jox nañ la baat bu neex bu mel ni baatu Daawud alayhi salaam kon lan lañ ci dégg ne kon mooy ndekk kon jàng ko di ko neexal waru gar la ca dañ ko war a neexal am na ba tey xadis bu màgg bu yéeme xadis bi Abdullah ibn Mas'ud solo radiallahu anhuma jële ci yenn saa salaam wax ne iqra alayya alquran fa qultu ya rasulallah aqra'u alayka wa alayka unzil qaala inni uhibbu an asma'ahu min ghayri fa qara'tu alayhi surata an-nisa hatta jud ila hadhihi al-aya fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haulaai shahida nee na bis yoon saas daf ma ne daf maa wax man moom moom Ablaye ma sonne ma jàngal ma alxuraan ne ko yow mi yàlla yónni naka laa jàng ci alxuraan te ci yow la ko yàlla wàcce ne ko dama ko bëgg a dégg ci keneen ko dul man neen ma tàmbali ci suut bopp suut nisaa di tari ba ci fa kayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bi shahid wa ji'naa bika ala haulaai shahida nee na mu ne ma mu ne ma doy na doy na doy na xas xasbukal aan mais bu ma nee gees maa ngi gis rongoñ rongoñ yaa sotti ko lañ ci dégg mooy alxuraan kon ki koy jàng war naa jeexi mbaa mu war naa jeexital ci moom boobu déggee lu jar jooy rek war naa jooy xam nga aay jooju su ma da ci wax ne bis penc ku ma dekkal ku nekk naa la boole ñaari seere yoo xam ne ñooy taxaw di la seere la xam la nga jëfoon dara duma ci rëcc ne ko yow nag bu ëllëgee moo la taxal yaa say seere nooy def yow Muhammad loolu nag jeexeetal ci ci xolam ba tax ay rong sotti ko euh, kon kii jàng alxuraan dafay am sakina alxuraan dafay def sakina ci nit mooy ak dal dafay def yërmande ci nit lu bàyyi ko ci àlla subhanahu wa ndax li yonente bi saa sama wax ne majtama xawmun fii bayti min buyutillah yatluuna kitaaballah wa yatadarasuuna baynahum illaa illaa nasalat alayhim sakina wa xasiyatuhum rahma wa xafatum malaikatu wa zakarahum laa fi man indahu sallallahu alayhi wa amul menn mbooloo muy daje ci benn néeg ci néegi yàlla yi di fa jàng téere bi yàlla bi di ko fa jàngalante ci seen biir lu may sakkiin mooy ak dal dana wàcc ci seen biir yërëma ne yàlla dana leen muur malaaka yi dañ wàcc wër leen yàlla dana leen tudd tudd fa moom ci kurilam ba kon alxuraan kon jàngul am solo la alxuraan bëgg ko rek bëgg ko rek dafay tàbbal nit na am na benn sa xadi benn ñëw ci yoon saas ne ko yaa rasulallah inni uhibbu hadihi suura qul huwa allahu ahad qaal inna hubbaha adxalaka aljanna ne ko yow Muhammad dama yow yàlla yoon dama bëgg lool saar yi di sootu sootu lixlaas muy qul huwa allahu ahad mu ne ko bëgg gi nga ko bëgg ma lay tabal aljanna kon ne bëgg alxuraan kon naa tabal ni aljanna loolu ci ngëneelam la alxuraan nag war a jeexital dëgg-dëgg jeexit ji nga xam ne dana ko def ci société alxuraan balaa mën a jeexite ci xolub jullit faaw mu taxoo di ko jàng taxoo di jàng mooy tax mu mën a jeexital ci xol xolub ab jullit rawatina murit moo tax Sëñ Tuubaa digal murit yépp wax ne ku ma yaakaar digal na saxal jàng alxuraan kullu muridin bi yaluutu yu dim tilaawatan li xayri dikrin xadru sim nee na bépp murid boo xam ne ci man la weeru digal naa ko nay saxal bis bu nekk na jàng alxuraan bañ koo bañ koo jëllal am na feneen fu wax ne adim tilaawatan li dal kitaabi walaw thalathatan min al ahzaabi saxalal jàng alxuraan bis bu set donte ñetti xisib la na ko saxal bu mu génn waaye njàng moom yi nag balaa mën a jeexital faaw muy ànd tadabbur alquran da nga koy setantal doo jàng rabet rabet rek muy jeex waaye da setantal settantal di settantal maanaa yi lu cay ndigal nga xam ne lii kat yaa ko tax ju nga jëfi ko lu cay tere nga xam ne yaa ko tax ju nga fas ko yéene bàyyi fu ñu fa tadde fa fu yàlla alxuraan tagge waaju baax nam mel ba tax su di ko tagg nga jéem a mel woowu melukaan ku yàlla ŋàññi ci alxuraan nam mel ba tax su moon ko nga fexee sori woowu melokaan loolu may tadabbur te su ma nee na afalaa yatadabbaruuna alxuraan bi alaa fa aqfaaluhaa moo ndax du seetantal alxuraan wala boo seen xol yi dañ ko tëj kon ku ñu seetantal kon day mel ne ab xolam dafa tëju kon suñu dubaa dellu wax ba tey ne mboolem xeeti tudde yàlla yépp bi ci gën mooy téer bi yàlla bii di alquran wa afdalu dikri kitaabullahi ma tadabburi wal intibaahi wa aayatun waaxidatun tutubbirat fiiha tafuuxu xatmatan minhu xalat Sëriñ Tuubaa nee mboolem tudd yàlla yépp alxuraan a ci jàng alxuraan waaye bu àndee seetantal nag seetantal tadabbur mu ne benn aaya boo jàng seetantal ko moo gën nga wàcc kaamilu lëm te seetantaloo ci dara kon dafay tegtal kon am solo goo xam ne seetantal muy tadabbur am na ko solo ay bi salaatin aw bi mushafin sama wal jaahiru haythu min riyaa moo xam nag ci julli nga koy jàng moo xam da ngay tiim kaamil bi jàng lu ci ma doon rek na nga def tadabbur mu ne jàng boo jàng alxuraan jàng ca kaw moo gën su fekkee mën ngaa mucc ci ñi sal su fekkee ñi salu ci am jàng ca kaw gën su fekkee jàng boo jàng ca kaw mën a gisal nag suba nag jàng jàng ndànk moo gën ci yow. kon balaa mën a tasiir kon ci kon faaw nit kii saxoo ko jàng saxoo ko seetantal waaye du tax na tasiir alxuraan mën a jeex mën a mën a mat lu may danga koo jëfee nag boole ci. di ko jàng di ko seetantal waaye di ko jëfe ndax alxuraan kat dara taxuñu wàcc ko lu may ngeen nga jëfe ko wax ne fa innahu subhanahu ma anzala illa li taamala yàlla wàcc ko lu may ngeen ko dong kon nag dee ko jëfe kon mënta ñàkk kon nit ki kon di jàng alxuraan waxtu wu nekk waaye di ko settantal ak di ca ballulu kem nañ ci ay xam-xam ci alxuraan di ko jëfe di roy képp kuñ ca tagg waaye di moytu melokaan képp koñ ca ŋàññe waaye lépp lu cay ndigal nga jëfandikoo ko lu cay tere nga bàyyi ko ndax suñu bàkkat nee na ku bëgg a jege yàlla da nga jàngal alxuraan fa man araada alqurba min mawlaahu fal yaqra il qur'aana laa yansaahu ku bëgg a jege yàlla jege ko sax dàkk na jàng alqur'aan na ko saxoo jàng te bañ ko fàtte waxaat del waxaat nee naa day ngërëmal yàlla ki ko bëgg nay saxal jàng alqur'aan xultu fa man yurid rida arrahmani fal yuthbitan tadabbur alqur'aani fal yuthbitan neen ku bëgg am ngërëmal yàlla lu dog lu sax dàkk nen nag ngay saxal di seetantal alxuraan di ko jàng di ko seetantal eh, alxuraan kon lu mata lu mata fonk la lu mata toppatoo la waaye lu ëpp gàddaay la it lu ëpp gàddaay lu ëpp woon gannaaw la eh, ndax su moom tëkkoone ci wan ko gannaaw ndax wan gannaaw alxuraan dafay ñàkkal sa ak dund dafay naqari ak dund dafay juri merum yàlla subhaanahu wa taala di jurum bëggalam yowmal xiyaamati ndax neewoon na waxadaatay naaka min ladunna dikra maanaam arada anu fi noo yaxmilu yowmal xiyaamati wisra xaali diine fii fii wasaa anum yowmal xiyaamati ximla nee bispenc bis dama laa jox sama dama laa jox alxuraan di bàyyi ko fi man yàlla képp ku ko dëdd nag woon ko gannaaw bispenc dana gàddu bàkkaar bu rëy rëy bu mag a mag a mag te dana sax ca loolee mbugal moomee bis penc dana naqari ci moom lool dañ koy dañ ko sëfiyan bu des gan bu ndootul tàggoor waxaan ne wa man arada an dikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuru yawmal wa qad kuntu basira qaala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika yawma tunsa suñu borom nee na képp ku woon gannaaw sama téere bii de alquran xalsaan naa dund dund ko naqari fii ci àdduna te su ma koy dekkal silmaxa laa koy def su ne ah yow suñu borom lu tax nga def silmax te ci àdduna ma doon njaacaar mu ne ko dama laa jox sama alxuraan nga fàtte nga fàtte ko na nga ko fàtte woon noonu noonu laa lay fàtte te ci sama sama sawara si yàlla du fàtte waaye dina jëfandikoo jëfandikoo jëfi koy fàtte ak waxaan ne waama yachu an zikri rahmaan nuqayyid lahu shaytaan fa huwa lahu qariin neen képp ku dund dund wax ne boole woo ci alxuraan da nga ko beddi ne naa ko boole seytaan soxna moo koy lëcc lëccee fu fu mu jëm moo ko fay jëmale nga xam ne wa inu lay sudu an sabili saa su nekk mi ngi jàpp ne day jàpp ne mi ngi ci aw yoon te fekk waaye waaye si bon anum muta doon jàpp mi ngi ci ak njub te fekk na wàcc na yoon bu yàgg te du ko yëg waaye ku jàpp ci alxuraan nag nañ nañ xam ne alxuraan dañu ko laaj ëllëg ci li ñu laaj la bokk Abdullah ibn Umar newoon na yonent bi nee na war rajulu raain fi ahlihi wa masulun an raiyati fi bayti zawjiha wa ku nekk ci yéen ab sàmm la dees na laaj lam doon sàmm nu ko sàmm bu dee njabootam ci ci këram comment doon alxuraan bokk na ci laaj su ëllëgee kon mat naa bàyyi xel kon mel na ne àgg nañ fi ñu yëkkati jotaay bi kon dañu teg foofu suñu baaraam allah ba yeneen ajjuma ak jàmm ci seen émission yi xam sa diine ñu den tàggoo di ñaan suñu borom di gën ci noonu yàlla ko son suñu borom defal dëpp lu nu gënal suñu borom dimbale boo leen defal tawfiq xiir nu ci njub te saxal nu ci te def nu dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa te Sëriñ Tuubaa nangu nu suñu taalibe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu وجهت كلي إلى ذي الفضل والمنن عبدا قديما له بالفرد والسنن وجهت كلي إلى ذي الفرد والمنن عبدا قديما له بالفرد والسنن حمدي وشكري لباخ لا شريك له على مجاورة المنجي من الفتن هداني الله بالماهي وأشكره من غير شرك ولا غش ولا كتم الحمد لله رب العالمين على محمد من بخير البشر أكرمني أثني على الله والإكرام بشرني وكان لله بالتبشير والأمن